ginnaaw bi sant yàlla di jullu ci yeneen bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu yéen internet Leewtoo TV di am contentement ak mbégte janoog yéen chaque jour ngir leen li gën a fës ci noonu nag damay nuyu ñi ma toogal rek daal di ñëw jukki leen li gën a fës si bopp xibaar yi mbay nuyu naa la Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu bu baax a baax euh, ñépp ñu ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaan jàmm ak salaan di nuyu waa Jurbel sama dëkk Assane Waalo nuyu naa la. mais Mbacke gën a fës ci benn carrière. ma nga noonu nag revue de l'arène bi Ibrahima Jador maa ma koy waxee chaque jour mooy dund bi gën ci dund nii moom tey ci xëtam bu njëkk contre Eumeu Sène Lac de Guiers 2 le conducteur de Waalo à l'épreuve à l'épreuve de Dof du Wér. ma nga noonu Lac de Guiers 2 ku ne xam ne ne Eumeu Sène la war a jàkkaarloo le 4 avril foofu ca arène nationale Père Gaston Mbengue moo taxawal boobu le combat moo tax na Lac de Guiers nee na mu ngi ci ay wàccaay yu tàng jër ya nga xamante ne bii du bàyyi benn côté Assane. ndey Babacar ni ko waxee noonu la combat contre Eumeu Sène Lac de 4 av combat 4 avril bii mu jëm mi ngi fi dajeeg mbër moo xam ne nii moom la woowee dof ju wér waaye nag nee na de Guiers war na def tout pour effacer defetam bii mi nga xam ne nii amee woon na mu ci Eumeu Sène le euh, euh, la troisième fois ñuy daje Eumeu Sène daane na ko lii donc amul droit defaat erreur ci combat bi waaye nee na ngi dajeeg mbër moo xam ne nii mbër mu blessé la ndax Modou Lo moo ko daane woon le 28 juillet 2019 jël couronne bi ci moom donc lan la fekk na def attention mi ngi dajeeg benn dox ne dox dox bu wérul la. dox bu wérul la. <laughs> dox bu wérul la te li ko darañ ci combat mag Modou Lo ba léegi daf ko metti daf ko metti dafa euh, mhm. na ko effacer ci bi ci bi combat. ma nga doon ama neex la nga xam ne ci journal suñu laam nee na su combat boobu taxawee dina dóor ki nga xam ne mooy Baboy ba mu tëddal boppam daal di ko yóbbu wala traite Mbaye Babacar. gannaaw ba journal bi bindee démb suñu laam. Mhm. di laam-laamee ndax. baaboo yu mën na ñëwaat ci làmb ji waaw wala déet ba tuddal ko ñaari adversaire kii di Gris Bordeaux ak Ama Neex Ama Neex moom tey dafa ñëw ci journal bi Assane di tontu. dëgg la euh, a nag moom réagir na ci wax jooju Ama Neex nee moom pare na pour jàkkaarloog baaboo yi euh, nee na nee na waaw pare na bu jàkkaarloog Baboy nee bëgg na daje moom ndax Baboy dafa daane woon benn xaritam bu naan bàyyi ma ñoon te nee na revanche boobu bëgg na ko jël te bu dajeeg euh, Baboy dina ko door moom daanu ko ko. ma ngi loolu nag depuis États-Unis Yékini Junior sa signal et déclare mon combat contre Eumeu Sène est logique mu mel ni que kooku di Yékini Junior rek ba doon dafa ji nga xam mooy gàddaam boo sa mbay Babacar waaw ba mu gannaaw ba mu tolloo États-Unis yëkkati yooyu la kàddu nee na daal fi mu toll nii digganteem ak Gris Bordeaux moo ñor xom te mu nekk na combat ba nga xamante ne bii lu jaadu la ki wax loolu moom mooy Yékini Junior nekk fële ci États-Unis d'Amérique. dëgg la Baye Babacar des États-Unis Yékini Junior se signale et déclare mon combat contre Gris Bordeaux noonu la ko journal suñu laam bindee ndax Babacar démb suñu laam dafa bind benn papier Junior ginnaaw ñoom ñaar ñoo bëggoon Sa Thiès te combat boobu taxawul ñoom ñaar war nañu euh, Junior jël kàddu ci suñu laam moom nag ñu ne ne ki mu mooy. Gris Bordeaux ndax nee na Tapha Gueye ba mu ciy tolloo dafa joxoon sens euh, mbër yi di Balla Gaye ak Lac de Guiers donc Gris Bordeaux également war na ko jox sens mu euh, prouver euh, ay talent am nee na am na mbër yoo xam ne nii am na li promoteur yoo xam ne ni dañuy def dañuy am dañuy day am favoritisme ci làmb ji nee am na ñoo xam ne ni promoteur yoo xam ne ni dañuy choisir yenn mbër di leen tëggal ko ba bàyyi yeneen yi wax na également ci combat bi nga xam ne nii moo waroon dox ci Sa Thiès nee na lu tax mu kappale nee na combat boobu Gaston Mbengue moo ko bëggul sinon su ko dina mën na ko jot moom téléphone am toujours mi ngi fonctionné bu ko bëggoon dina ko tëgg. Yékini Junior moo yëkkati yooyu les cadres. Yékini Junior moo wax loolu. muy noonu nag mercredi de l'arène li nga xam te ne nii mooy le CNG a mis mise 3 millions de avril incha allah mbay waa ko mel ni CNG moom ubbi commencé na tournoi bi. président Birane Sène ginnaaw ba mu ko diggee amateur yi na day day day dëgg ay làmb yi nga xamante ne bii mercredi de l'arène la ko tuddee fas yéene na koo commencé nag incha allah bu ci yàlla àndee ñëw ci war cee teg ñetti millions asal foofu ci arène nationale. dëgg la mbay baal la ginnaaw bi nga ko falee ci CNG benn euh, décision bu ñu bu faar mooy que ne. dafa waxoon ne day tëgg ay combat tous les mercredis wala tous les deux mercredis du mois mu tëgg combat loolu nag mel na dëggal na ko tey ndax le 7 avril bii di ñëw CNG bi day tëgg benn gala de lutte foofu sa arène waa ci musée 3 millions euh, lii nag moom mooy euh, nekk première journée les mercredis mercredi de ma nga nag gala de lutte simple samedi 10 avril docteur syndicat mise 1 million à Mbour ba léegi ñu des ci bëre simple bi muy lutte traditionnelle bi mel ni temps yi promoteurs yi dañ koo jël ki nga xamante ne bii moom mooy docteur syndicat Assane wax nga ko sànq nekk mbër bu pare di tëgg ay làmb nekk foofu ca Mbour géej incha allah moom tamit fas naa teg. un million foofu ca Mbour. dëgg la mais waaw docteur euh, syndicat nekk promoteur waaye nekk mbër. Mm-hmm. moom de lutte simple fan lay amee ci Mbour le 10 avril 2021 bi li ñëw docteur ci gala boobu dina ci teg un million de francs. docteur syndicat bi ne lu ko daal daaw mooy baax na vraiment ñuy jour bu ñu arrêté manifestation sportive bi jour boobu da doon tëgg benn combat benn de lutte deux millions cinq cent léegi ñu arrêté ko. Euh, ci combat bi commencé woon na ñu arrêté ko ci digg bi léegi nag mu mu am ci ay perte yu bëri léegi nag moom lu mu bëgg moo ne dalaa boobu comme perdoon na ci ay ay xaalis léegi moom nan ko euh, remboursé au moins frais yi ci defoon. Euh, mu ngi noonu CNG Kaolack formation des lutteurs et durée des galas ki nga xam te ne mooy président Mampor Faye préconise des innovations mais bëgg na indi changement ci nga xam te mooy milieu làmb en plus durée yi nga xam te moom la. Saint Pré di jàppante mu moom mi jiite CRG bu Kaolack remplacé Bira Sène di wuyoo ci turu Mankor Faye li mu xam ne mooy bëgg na andi lu bees tàkk foofu ci kaw Kaolack ndàngaan ci wàllu làmb ji bëgg na former mbër yi ñu yëngu ci leneen nu bokkul ak garde rapproché sax Assane. dëgg la Mbaye Babacar Mankor Faye mi nga xam ne nii moom moo wutu Bira ci boppu CRG bu Kaolack la ko na dafa bëgg indi changement foofu ci làmb li mu bëgg nag moom mooy former mbër yu fa nekk waaye former également armée bi mbër yi euh, nekk garde rapproché rek warul nekk seen métier war nañ am nekk mbër nekk garde rapproché waaye également mérité nañ am yeneen métier yoo xam ne nii dina leen permettre ñu gagné seen biir nee na également bëgg na former euh, arbitre yi pour que ñu bañ a def ay erreur ci gala yi ñu xam texte yi ñu xam luwaay yi nga xam ne nii moom moo tënk euh, mbër yi ak CNG yëpp. nee na également bëgg na wàññi durée galaay nee na galaay da doon commencé 23h jeex 6h di matin nee na loolu dafa bëri tellement bëgg na ko changer de telle sorte que euh, galaay di teel a commencé di teel a ma ngi doon nag interdiction des gouverneurs et préfets d'organiser d'organiser dans les régions ki nga xamante ne bii mooy Malick Gningue maanaam ñi mi nga xamante ne bii moo jiite ARELS moom dafa baaram euh, baaraamam ñi nga xamante ne bii ñooy gouverneurs yi ak préfet yi nekk ci régions yi gannaaw ba ministre bi ministre des sports euh, ne léegi mën nañu delluwaat ci stade yi xam na ne semaine bii passé régions yi pour nga tëggoon jafe-jafe la woon Assane. léegi nag mu joxoon ma baaraam ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy CNG ñu mën cee yëkkati kàddu. dëgg la Mbaye Babacar Malick Ngingue mooy président ARELS ARELS moom mooy association des responsables des écoles écuries de lutte du Sénégal moom nag dafa yëkkati kàddoom doon ñaawlu li amoon li xewoon euh, semaine bi passée mooy que ne ci région yi. préfet yi ak gouverneur yi dañu aayoon promoteur yi pour ñu tëgg combat mais lu tax euh, promo euh, yi ak ko mooy que ne ginnaaw bi ministre bi yëkkati ay kàddu wax ne euh, amateurs yi mën nañu dellu ci stade yi. Uh-huh. wax nañ ko waaye préfet yi jotuñu woon du leen koy notifier. Uh-huh. parce que administration da lay écrire jox préfet bi mu mën ko appliquer ñoom jotagul woon papier boobu donc mënuñu woon permettre nit ñi di dajaloo ci stade donc c' est normal que ñu aayee. la Assane. ma nga noonu nag Adrien Senghor Mame Cor Faye mise 1 million le 5 incha allah Mbaye Babacar Mame Cor Faye mi nag du Mame Cor Faye ma ca CRG bu kaw rek Mame Cor Faye mi promoteur la Mbaye. ba léegi ci lutte simple bi la ñuy des Adrien Senghor le 5 avril incha allah Mame Cor fay moo fay tëgg tournoi lutte traditionnelle tekki nag Assane 1 million franc. dëgg la Ndeye Babacar comme ni ko Ndeye Babacar waxee Mankor Faye bi moom rek Mankor Faye bu nekk. Euh, Kaolack uh-huh. kii moom promoteur la moom moo jiite également euh, structure bi ñu naan góor production. moom nag li mu bëgg moom mooy tëgg benn gala de lutte ginnaaw gaal gi tëgg na Adrien Senghor bi war na commencé tëgg foofu la nar a jëm sax le 5 avril bii di ñëw lu mu fay teg ñaan di mise million la fa bëgg yóbbu amalee ko foofu ci arène Adrien Senghor boobu nga xam ne ci Grand mu mel ni temps yi gars yi dañoo jël bëre simple bi Assane. dëgg la mais daal kat bëre simple bëre simple moom moo gën a neex euh, dëgg. Mhm. Ah, dans une euh, une semaine rek mën nga ciy organisation def ci te doo ci du la coûter tellement cher doo ci am ay face à face yooyu du la ci fekk donc du simple daal moo gën a yomb tëgg nit avec frappe. te amateurs bëgg nañu bëre simple. amateurs yi foo tëgg fekk ñoom dañ koy dund bu baax a baax. xanaa ci ci ci noonu rek ñuy fàttali amateurs yi incha allah le 27 ak le 28 mars. Leewtoo production ma nga jëm fële ca Joal moom tamit teg fa mise un million cinq cent woo amateur yëpp ak mbër yi ñu préparé ko ndax événement bu mag lay doon. dëgg la Mbaye Babacar ku fa ñëw da nga fa fekk tafatin ak. Euh, Boy Niang Boy Niang da ñëw. waaye tamit Ndeye Fatou Adama Jali moo nar a animé gala boobu moom ak Jab Diagne. cëriñ la 27 ma a noonu Matar Ba le retour du public doit être encadré moom ministre bi ba mu génnee ne public bi mën nañ ñëwaat fi nga xam ne mooy enceinte de la lutte lam ci xamle mooy na gars yi ñëpp respecté nga xam ne mooy mesure de barrière yi mbay Babacar loolu mooy tax ñu mën a wëyal lii di jongante yi ñu respecté mesure barrière yi ba pare li ma daal ba xam ne mooy ñu war nañu encadré eh, public yi ñëw ci stade bi Assane dëgg la Mbaye Babacar le retour du public doit être encadré kàddu yooyu la Matar Ba yëkkati ci suñu làmb nee na d' accord accepté nañ euh, public bi ñu revenir ci stade yi waaye loolu war nañ ko encadré maanaam ñu respecté mesures barrières yi ñu def lavage des mains ñu sol masque yi waaye également ñu respecté distanciation sociale yi Matar Ba daal nee na lii faw ñu respecté ko bu ñu bëggee public bi di continuer di ñëw ci yi. am na solo. ma nga doon nag ba promoteur di jàpp dat ki nga te mooy Fall nee na ndax dem doo leen dem ma des ah Mbaye Babacar. Ngal ba tax na le 27 bii di ñëw incha allah mu ngay tëgg fee ci arène nationale mooy kii di Doudou Ndiaye Doudou Diagne Diecko président des amateurs mbay. ñeenti millions la fa teg 4 millions la teg foofu ci arène nationale jël bis bi nag dippee ko Doudou Diagne Diecko président des amateurs Assane mu nekk bis ba nga xamante ne bii bis bu am solo lay doon ndax amateur ku jël laa làmb tuddee ko ko da jël bàttu rek delloo ko ca ndaam. dëgg la Bébé Babacar ginnaaw bi ñu demee Gambie tëggoon fa benn combat boo xam ne nii wala benn gala boo xam ne nii amoon Fallou Ndiaye nar na ñëw Sénégal ouvrir fi saison fu mu jëm nag moom mooy ci arène nationale kañ le 27 mars 2021 foofu ci arène nationale nan la fay tëgg benn mise de 4 millions la fay tëgg pour lutte simple euh, pour mbëru lutte simple yi ku mu ko dara jaaree nag moom mooy Doudou Diagne Dieng Doudou Diagne Dieng kenn ko présenté ci milieu lamb moom moo jiite euh, association des amateurs comme ni nga ko waxee ku jël Doudou Diagne Dieng ko tuddee ko euh, bésu lamb. Mm-hmm. def nga lu war. woon daara ci buuxum soow. mbaa nga woo lakk mbaa nga woo lebu ci lakk jël. mbaa nga woo géwél ci tëgg sabar. ma ngi noonu nag journal record lañ jëm kam xëyee nag mooy Eumeu Sène. 20 mm. combats 15 lutteurs croisés nga xam mooy Eumeu Sène le na ci nga mooy jaar-jaaru Eumeu Sène mbay baax wallaay di record moom moo xamle loolu ni mu tuddee Eumeu Sène nag moom mooy buuru ki nga xamante ne bi naan dafa man bëre ak yow war a bëre waat ak yow Assane mel na ni record nee na Eumeu Sène bis yu mel noonu da koo mën. la may baax na vingt combats quinze lutteurs croisés Eumeu Sène le champion des revanches noonu la ko journal record titré nee na Eumeu daal képp ku nekk ci làmb di takk di képp ku nekk ci làmb di takk. ngemb di takk ngemb rek. Uh-huh. moom mooy sa champion ci wàllu revanche ndax nee na euh, jot na croisé quinze lutteurs yoo xam ne nii amal na ci cinq revanches waaye ñu fàttali nag Eumeu Sène. daje na ak Gris Bordeaux deux fois. daje na ak daje na deux fois. daje na ak Lac de Guiers deux fois mu jëm ci troisième fois bi. waaye daje na ak également deux fois ñu fàttali ne carrière Eumeu Sène jot na bëre vingt combats am na ci dix victoires sept défaites deux nuls ak benn sans verdict. am na solo. mooy loolu Assane nga jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës si bopp xibaar yi mbay lay tàggatoo xanaa jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam wante tey di nuyu di sant bu baax a baax ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Ahmed Tidiane kebe Diakhar noonu lañ koy bàkke nag kebe Diakhar ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di la wax dalal jàmm ci biir kër gi di la souhaiter le bienvenu ndax gan la wante mu ngi andi ay euh, innovation yu am solo ci kër gi Kébé yal na si jàmm yàgg. comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall Mansour ak bu nag di leen bu baax a baax a baax nee naa leen ku ci nekk suñu mënoon fekk la nga di la koy nuyoo ci nuyoo bu gën ci am mbégte jànnoo ak yéen chaque indi leen di gën fas bopp xibaar yi di remercier ñoo fekkaloon ci revue bi rek Mbaye Babacar Assane Waalo kontaanee naa la bu baax Mansour